man maa ngi jóge ba Touba yàgg fee ñëw yàlla def jàmm bëgg naa kontaan ba vraiment waa daaru waaj nañ ko nit ñi wuy si nañ leen di ñaanal ñëpp yàlla def jàmm ñu yàgg koo fekke voilà en daal suñu yoon bi ñu yaakaar yàlla def ci jàmm dooleel suñu kilifa yi defal leen gudd fan ak weer ñu yàgg koo teewee te yàlla may ñu it luñ ci indi te yàlla may ñu yit loo xamante ni bu ñu ñëw déwén ñu mën ko cee gën a def daal. ndax Seexul Xadim daana wax ni kere bi waajuram nelawee ñuy miraas ko dani naa féete kerno ak téere bi waajuram soxna Faati Isa lu baax lu ne mu def ko bi fi sëriñ bi jógee dem ci géej gi tubaab yi wax seen wax jooju moo defal maam Cerno moo ne ko Cerno dama defo ne xam nga sar sama gi de sama gi mo ne ma won moo may nangu ci bir babel te sama gi lu wax dara ko def koku moy mam Thierno Ibra fati motax way kat bani mo jekk dem dar ci keur borom dar, billahi moy gor maam Thierno fati ba Bamba soxlaa yow lan fa wolu yalla la wolu mam fati borom maqama amnay karama ne len jaram mam Thierno fati kon wa Mbour jere ngeen def ndax xam nañu mam ibrahim Ndamul Daru te jege bu mu jege woon Serigne ba Serigne Touba dem ci géej gi tamit moom la dénkoon njaboot gi moom la dénkoon taaliba yi ba eh, yenn ci maam yenn ci njaboot gi sax moo leen doon jàngal ñenn ci mag ñi tamit sax mu nobe xaban xab ci di ndey soo rootee bari ndox soo tajee bëri xandeer nekkoon ci waar yi di maam di soññi taaliba yi naa leen liggéey leen kon maam Thierno Birahim yaakaar na suñ ñëwee ci magal Darou Moussi suñ ñëwee ci Darou Moussi rek suñuy xel ak suñu xaat leen nangu la war mooy dem dugg fii ci biir barab bi ñaanal ko yàlla ñaanal ko yàlla yërëm ko waaye ñaanal ko tamit yàlla yokk ay leeram waaye tamit ñaan tamit dëkk bi Daaru Musi sëñ borom wàcc fi tawfeex ak jàmm ak xéewal ndax maam Cerno Birahim Daabal Daaru liggéey na ko ndax keroog ba ko sëriñ Tuubaa ne ca Tuubaa ba muy dem di wax ak moom jàpp naa ni bi maam Cerno Birahim ne soos dugg ñëpp dañoo jàpp ne kii mooy sëriñ Tuubaa te ar ko koo moom rek sëriñ Tuubaa ci benn xista rek bu ndaw rek keroog bi maam Thierno Ibrahima ndaamal euh, daaru génnee bi mu gënee àdduna Maamoor Anta Sall dañuy Sëriñ Tuubaa sa yoonu màkk yi ngay jàpp de gan gii la gane si tey bu fekkee ni jigéen la danga ko mën def waaye bu fekkee ni góor la liggéey bi nga nar a liggéeyal Seexul Xadiim wala liggéey bi nga nar a liggéeyal euh, bi Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam koo xam la ci jàppale kon tey kooku moo tey moo war a magal gi ñu gën koo xam ci maam Thierno ñu ngi liggéey. sanc ay dëkk yu bëree bëree bëree mën nañu wax daaru marnaan daaru mus ak yeneen yi dëkk dëkk kon maam Thierno Birahim Ndamal Daaru daal wax dëgg yàlla kenn la ci sëñ Tuubaa neex rek macha allah waaw ñu teg ko si ngor ak lislaam waaw di soññaat suñu njaboot gi ñu dellu si ngor ak diine ak lislaam jàngal leen jàng alxuraan waaw xam li yàlla wax ak yonent bi sallallahu alayhi ak li maam Thierno dénkaane ak sëñ Tuubaa waaw ñu leen di ñaanal nag yéen tamit ndax li ngeen di def lu baax lu baax rek moo la fi indi quoi te borom bis bi nga xam ne si maanaam moom lañ ko deful mi maam Thierno euh, lépp lu fi di sàkku yaakaar naa da ko am amu sax yaakaar naa da koy am parce que it moom dafa liggéey Serigne Touba tey jii ba am li mu am yaakaar naa tey lépp lu fi di sàkku ci lu baax am na yaakaar ci ni maanaam boo ko amul rek yow la mais yaakaar naa daal boo ko boo ko ko xañ sa bopp daal waaw am nañ si yaakaar bu baax a baax parce que it borom bis moom moom ñàkkul dara daal wax yaatal na lépp mi dam kon nag ñoo leen di sant bu baax di leen gërëm waaw di ñaan nag tale bi nga xam ne si maanaam moom ngeen yore muy Mbour TV la ñoo ngi leen di ñaanal daal euh, mu àgg fi tale yëpp di àgg daal yàlla dafa leen ci kawe seen jot ñoo leen koy ñaanal bu baax a baax a baax waaw parce que yéen seen teewaay ci bis bi tam rafet na trop macha allah parce que li am na solo trop daal waaw kon ñoo leen di sant bu baax a baax def ay télé télé ci barke Borom Touba ci barke maam Jaaratullaahi ci barke maam Mor Anta Sali Mbacké ci barke yonent bi asalaamaaleykum wa rahmatullah